mbokki internet yi dalleen ak jàmm mu mel ni coowal Iba Thiam mi nga xamante ni nag dafa daal di ñàkkoon bakkanam ginnaaw ab soirée goo xamante ni euh, soirée privée gu ñu defoon moom Dame maar ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu moom mu jotonte ñàkk bakkanam ginnaaw ab overdose gu mu defoon ci diwaanu drogue euh, moom mi nga xamante ni euh, moom mooy nag Dame Amar ak ñamu ca àndaloon lu ci mel ni ñoom Yaya Dia ak Jaja Tall ki nga xamante ni mooy Louty Ba jamono ji ñoom ñëpp ña nga ca ndungu seen di xaar nag a liberté provisoire goo xamante ni nag juge ba dañ ko daal di daal di lankal nag bandaare ne du leen ko daal di jox ñoom jamono ji nag ñuy daal di nag euh, sàkku sax ñu daal leen nag jéggal ndax loolee nag erreur képp la woon jamono ji nag mu mel ni am na ñoo xamante nag mbir mi euh, jàngewuñu ci dara ndax bu ñu daal di doyloo nag xibaar yi nga xamante ni jot nañ ko euh, ci ab nag groupe nag ay nit waaye nag nekk nañ ay nit yoo xamante ni nag comme nañ koy waxee duñu n'importe qui ndax nekk nañ ay doomu nag boroomi barke nekk ay doomi diplomate ba ci sax ay doomi ministre xam ne dañoo daaji dajaloo woon nag jàpp piscine party goo xamante ni moom la ñu doon def ñoom ñi ñëpp nag police fekk leen fa tas mbir mi daal leen di jàpp jamono ji ndax nag ca soirée boobu non seulement amuñu woon li nga xamante ni moom mooy autorisation ba noppi nag def ko ci loo xamante ni nag jamono ji dañoo nekk nag ci covid 19 nguuru Sénégal rawatina président Macky Sall lancé li nga xam ne mooy état d'urgence daal di koy euh, booleeg ab couvre-feu goo xamante di vingt et une ba cinq heures du matin ñuy xool nas mën a def ba daal di nag daan mbas mi di covid 19 jógee si suñu réew mi ñoom ñi nag amuñu leen lu ñuy def lu dajaloo nag di def lu leen saf ci ab piscine party ñu gis si ay couple diplomate ak fii sa papa yoo xamante ne nag tur ya boppam bu ñu ko waxoon loxo dar gémmin wante nag mbir ma du loolu kese ndax buñ fa nekkoon di fecc ko way kese sax mu mën a neex wante nag ca soirée boobee nag dañ ci daal di gisoon nag li nga xam ne mooy tuxum chicha alcool ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nag dafa jamaajole koo xamante ni kenn xamul koy daal di lu la neex ci loo xam ne dëppoowut ak suñuy aada ak suñu cosaan benn te itam ci loo xamante ni yoon daf ko daal di tere ndax jamono ji uh, ku fa la ñu daal di nekk ñu ne nag bu kenn uh, génn sa kër bu vingt et une heures uh, jotee bu dul sa liggéey mayuloo ko ñoom ñi nag daal di dajaloo mu mel ni nag coowal Iba Thiam ba daal lewul nag jàpp leen nag ci xel wala bokk bàyyi ñu si xel mu waroon leen mën a yedd ci lu baree bari ba tax na jamono ji ñoom ñi ñëpp nag lu ëpp nag cinquante personnes yoo xamante ni jot nañ foofee nag ca kanamu procureur lañ la war ni ki suba sax ñu war daal di jot nag benn nag citation goo xamante ni ngir xool fan la la ñuy daal di nag mujjee ndax nag lii sax daf ñu daal di jàngatal ci sunu nag autorité yi ndax saay su ne nag seeni doom ñoom ñooy daal di nag jalgati yoon ci di ko defee nu mu leen daal di neexee te loolu nag buñ ko daal di waxee nag dañuy daal di xalaat ne rek mbir mi ci boppam lañu war a daal di xóotal xool fan mooy métti ñu daal di koy woo ko ndax bu autorisation yi ak itamit yenn nag ci ay lieux yi nga xamante ni ñàkk contrôle moo tax nag ay doomi nag ñi nga xam ne dañoo yor barke ñoom ñooy daal di nag di am autorisation am li nga xam ne mooy possession yéen nag ci ay attestation yoo xamante ni nag ca police ca kaw a kaw la war wante nag ñoom ci anam gu gaaw ak anam gu yomb lañu koy daal di amee moo tax ñuy jàngat nag ba xam euh, ñoom ñi nag mbaadu sax seen baay yeeg seen ndey ñoo leen di xàllal yoon euh, ba mbir di yomb ci ñoom saay su ne